jërëjëf Cheikh Mouhamadou Fadil yi taxawaay bi mat na sëkk fa tabarakallah li ci dolli ay kàddu sax xam naa liggéey bi la bokk waaye dégg njàngum xutba bi rek doy na lu ñu cee doole nag moo di rek mu góorgóorlu góorgóorlu suñu kem kàttan ci wéetal yàlla suñu borom ci lépp man ca la ca dolliku mooy doolu sëriñ bi suñu diggante moom sëkk kon loolu mooy la ca dolliku mooy nu gën a xam nag rek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 mu def ko muy sunu sunu yitte ju réeree kon fonk sunu diine fonk sunu taalibe rek moo fi nekk góorgóorlu bu baax su ñu doon di taalibe rek.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 waaw ba nu santee suñu borom mi nu boole sëriñ bi noo ngi sant sëriñ bi ci wàll yëpp ci lépp biir bi ci teegal la daja dolli ko nag di sotti rek mboolem mbokki jullit yi mboolem mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi ñu ngi sant ñëpp xam nañ ni yitti ji yitti ji jenn rek la muy ni ñu taxawoo suñu diini rafetale ko sunu taalibe xam na ne ci loolu rek lañ nekk nañ góorgóorlu bu baax ngi sant ñëpp ci rawatina jamono yi ndax eh, xew am na ci waaye fa tabaarakallaahu eh, xam na ne lépp ci sunu borom la bàyyi koo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 mu mu ñu leen koy liggéeyale jërë ngeen jëf